premièrement mooy gaalu mbaali gaalu mbaali lu ma ci mën a wax moo di surtout seen quinzaine bu quinzaine bu ñu demee foofu quinzaine problème yu di jàkkoonteel foofu ci diggante maanaam xale yi fa nekk di amee seen ay paaka di jëm nit ñi di nangu seen ay alal di nangu seen ay saaku jën di nga nangu di fab di jël di jaay ak ak homme de loi ya nekk muy policier kenn ku ne da ñëw diri lu la neex si gaal gi yóbbu te dooni mbuu dooni mbaa waaw gën ñu gën foofu daal xoolal ñu foofu ndax foofu noonu loolu du yoon. li si gën a xaar mooy affaire euh, moom moom licence de a xaar ngeen yombal na ko licence de pêche bi waaw gaal yu mag ak gaal yu ndaw yëpp waaw ñu yombal na ko dem bee dikk bi si waru gopp gi waaw jàppe bi yombal na ko bañ bañ amati. am mënoon may licence ba pare. dina sàkkal li ñu war a jàpp non non loolu mënul ne en même temps naar yi ñëw bi ñuy ñëw fii di contrôler gaal yi affaire pêche beeg yooyu noonu loolu moo warul ndax ñoom seen poste te leen fii indi mais du mbirum dëkk bi ndax suñ tool nii moom lii dafa metti trop dafa metti trop